الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk jullit yi ñu ngi yeesal sant suñu boroom nga la waay jaam lu la yàlla mën a séddi ci àdduna maadaama boole ne la ci jullit ñi foo tollu del sant sa boroom sa boroom boobu nee na moom moo teral doomu aadama yi yenu leen ñuy dox ci kaw suuf yenu leen ci biir géej yi wërsëgal leen ci yu teey gënale leen ca lu bari ca lam bind ak gënale mbokk ngëneel googu doomu aadama gën lépp luy dox ci kaw suuf ñu nekk ay million ci ay espèce ñay yaa nga ne jaan yaa nga ne gaynde yaag picc yaa nga ne rëkka yaa nga ci biir géej ak baleen ya yooyu yépp suñu borom yëkk ci doomu aadama ana lan mooy xéewal bi tax doomu aadama gën leen mooy xel ma ko yàlla may ak yar bañ ko yar ci yarub diine bu dul looloo doomu aadama bu amul yarub diine suñu borom nee na mboolem luy dox ci kaw suuf ñi ci gën a bon gën caa yées mooy yéeféer yooyu nga xam ne duñu dégg duñu topp ñoo yées mbott ya ak golo ya moom la borom bi di wax ni bind na doomu aadama nam gën a rafete summa radadnaahu asfala saafilin yóbbu ko mu gën a suufe luy suufe suñu borom yàlla wax nañu ci téeréem ay yéen julit ñi fegal leen seen bopp sawara fegal leen seen njaboot sawara soo demee mu fassiruuna yi nañ koy firee njaboot gi ñun ñu fegal leen sawara nañu leen jàngal diine ca nañu leen yar ci diine koo xam ne xamul diine kooku am mbaam la rek moo xam ni ku ko jëkk a jël jëfandikoo ko waaye ku xam ca yaruñu ko kooku it ku yées la lépp lu yàq moo ko yàq su ko defee ñu xam ne mbokk sunu ndaw ñii dafa am lu ñu leen war a laaye biir tey jii da ngay gis bokk na nooteel bu ñu tubaab bi nootoon ay siècle la tax ba tey jii boo demoon ci lekkool yi ñi ngi may lu ñu tuddee feetub noël feet goo xam ni mi ngi nar a ëmb ñaari feet yi gën a rëy yi catholique yi am muy noël ak 31 décembre ñu may suñu doom yi fukki fan ñu war a noppalu loolee mbokk ab culture la bu jóge Occident tubaab yi bëggoon ñu koy imposer loolu moo tax ba day wareef ci bépp ndawul jullit ñu xamal ko lan muy rôlam ci kaw suuf te roolam ci kaw suuf mooy na jàng diinam dund ko loolu nag noonu lislaam yi xam nañ ko xam nañ ne pour ñu continuer not la nga xam ne muy jullit nii mooy nañu fexe ba dox seen diggante diine buñ demee ba ndawal jullit ñi jàngatuñu seen diine yaratuñu leen ci yarub lislaam xanaa lu dul ay folklore ak i caaxaani ndaje su boobaa da ngay gis ñoom dañuy continuer jiite jullit ñi fu leen neex jaarale leen fa loolu kon moo tax ba wareef la ci ñuy fàttali ndawal jullit ñi lan mooy seen taxawaay ci kaw suuf te insha allah moo nar a nekk suñu taxawaayu xutba tey ñu nar caa dénk ndaw ñi fukki fukki dénkaane fukki dénkaane yoo xam ne su dee dañ na ndawal jullit war na caa taxaw ngir jaamu yàlla yow mag dama jëllale say mbir ndax loo daf daf xam ni mag mooy ka gën a jege la nga xam ne mooy dajeeg boroomam su ko defee ngalawaay yow ndawal julit xamal ni li jëkk ci mbir yooyu mooy jógal jàngi sa diine suñu borom yàlla nee na ndax ñi xam daan yem ak ñi xamul xam leen nañuy fàttali ko mooy borom xel yi mbokk ki xam alquran ak sunna jàng ba xam li taxoon yàlla wàcce ko ci kaw suuf mënatul yem ak ku mel na moom looloo tax soo bëggee gën soo bëggee sa njaboot gën nga la waay du ne nga tànn école yi gën a kawe ci àdduna bi yóbbu leen fa waaye mooy nga fexe ba ñu xam la nga xam ne muy seen diine di alquran ak sunna yonent bi alayhi salaam ne nag loolu farata la ci bépp góor ak bépp jigéen loolu di mbir moo xam ne ku nekk ci ñun war na góorgóorlu mu bàyyi ci xel mbokk nit ki nga xam ne ab jaahil la ku mel noonu waxuma du amal njëriñ xeetam waaye ak lorom sax mooy lay ëpp ci xeetam su ko defee ngallaawaay yéen ndaw ñi dem leen ci jàkka yooyu jàngale diina ju sell dem leen ca daara jay jàngale diina ju sell fexe leen jàng alquran comprendre ko fexe leen jël téere yi nga xam ne day jàngale diine boo ko mënoon a jàng ca arab ba directement mooy la gën falilahi alhamdu lu bari ci téere yooyu tey traduire nañ ko fexe leen am traduction yooyu di ko lire waaye aka bari tey ay julit yooyu dajeel ñu dem ba toll na seen bàyyi mus ñooy lire lii livre bu l'islam et pourtant day njàngum tubaab mañ leen jàngal bañ décroché ci ay licence que maîtrise lu tege cinquante nangam livre lire nañ ko lu leen di jàngal loo xam ne amul bopp amul genn kon bokk loolu mooy taxawaay bu jëkk bi jiitu ñaareel bi mooy yow ndawul julit xamal ne war ngaa bokk ci ñuy woote jëme ci lislaam xoolal ñee ña ngay woote ca match de football ya ñee ngay woote ca AFC ya ñee ngay woote ci lu nekk su ko defee fépp fu ngeen nekk àdduna ñaari force rek ñoo fi nekk imma nga woote wala ñu woola su ko defee nga bokkoon ca ñuy woote jëme ci yow suñu borom yàlla loolu la ñuy wax ne ñooñu nga xam ne ñoo ànd di woote jëme ci yoonu yàlla day ñii ñoo ñu texe falilahi alhamdu tey boo demoon ci lekkalu Dakar ya yaa nga fee fekk lu mel ni AMS di la nga xam ne mooy élèves yi ko def ay AMD ay AMUT hatta université waa FIED ñoo ñëpp di ndaw ñoo xam ne ak njàngum tubaab man na mu jaxasoog la méttee teewul ñu créer ay association di woote ci ay conférence ba tey jii rek am na ku ci jokkoo ak man ci séminaire boo xam ne dañ koy def loolu yàlla na yàlla fay leen waaye ngalla way yu ndawal julit néew na ci yéen ku bokkul ci équipe wala mu bokk ci association culturelle ngalla way fexe leen bokk ci mbooloo yoo xam ne dañuy woote jëmee ca yoonu yàlla boobee ñetteelu dénkaane bi ñu lay dénk yow ndawal julit xamal ne diine jii day muy diine lislaam amul ku ko mos a dund lu dul saboote nañ ko doyodal nañ ko waaye xamal na loolu mooy aada yàlla ci kaw suuf kii di luqman alayhi salaam ba muy dénk doomam nee na ko sama doom maa ngi lay dénk nga saxal julli maa ngi lay dénk ngay digle lu baax di tere lu bon ca lu muñ nag xamal ni muñ googu ca la gën a dogu ci mbir yi la bokk bépp xale bu jigéen bu xëy xëy bëgg a sànni ay jiinam ak jubux aawutam bëgg a sol ay la jilbaabam daan ko saboote bépp ndaw boo xam ne jëm nga ne da ngay roy sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sol yére lislaam di bàyyi la nga xam ne sab sikkim daañu la saboote amul kenn koo xam ne nii jublu na ci yàlla te muy dëgg lu dul yàlla boole ko ñu ko saboote ndax yonentam ya jiitu woon foofu lañ jaaroon kon nga la way yow ndawal julit sóoraale loolu ci xam ne loolu mbir la moo xam ne c'est anormal mais nag c'est normal ndax loolu mënta ñàkk ñeenteelu mbir bi yow ndawal julit ngalla waay góorgóorlul ci la nga xam ne mooy ndigili yàlla yi nga taxaw ci sa kémtaleel kàttan tere yi nga taxaw ci teel a doon kuy jaamu yàlla fexeel ba raw sa baay ci jaamu yàlla ni nga ko bëgg a rawe ci àdduna sa baay ak say maam fexe leen raw leen ci jaamu yàlla yonent bi alayhi salaam mi ngi ñuy dig bis bu màgg gannaaw dañu ko suñu borom digee nee na yàlla dana wàcc ab jantam ba mu tiim jaam yi doomu aadama yi seen yur yi di bax doomu aadama yi ñaq waaye suñu borom dana woo benn liste boo xam ne dana leen teral ca keru arsh rahman ba nga xamee ne yonent bi alayhi salaam nee na imaam bu maandu la ñuy jëkka woo kan ko ñaareele mooy ña nga xam ne ci seen ndaw lañ commencé jaamu yàlla nga la waay yow ndawal julit bu bokk ci ñi seytaane ne d'accord musulman la waaye nag ab ndaw moom ko ko tollu da nga koy dox mbokk loolu musiba la wallahi musiba la ana ñaata doomu aadama ñoo xam ne nii tey jii bi ñu ñëwee ci àdduna passé wu ñu fi 30 ans ñoo xam ne 20 ans ñoo xam ne 10 ans ñoo xam ne nii 5 ans doomu aadama fu ne mën nga faa deeyee soo bëggee nag say daraja kawe ci yàlla te li nga dox ci kaw suuf sax yàggul sax ndaw jagleel ko jaamu yàlla ëllëg gi gis si biir yàlla bool nag ñi fi nekkoon téeméeri at di jaamu yàlla juróomeelu dénkaane bi yow ndawal julit fexeel sellal sa bakkan bi mbokk bakkan dañuy xeex ak moom suñu borom mu ne texe na ki xeex ak bakkanam ba nag ko góorgóorlu ci gannaaw farata yi la yàlla gàll del góorgóorlu di def qiyaamul layl ngalla waay yéen ndawal julit ñi dee leen taxaw guddi di naafila bu ñu nee dañuy julli fajar six heures trente lu mu néew néew yeewul cinq heures trente nga jàpp taxaw sa kanamu boroom julli ay rakka ñaan ko say soxla ci sa avenir ñaan ko mu musal la ci ay ay wallahi da ngay gis ak ubbeeku bu rëy boo xam ne da nga am sa sa àdduna del jël ay bis di ko woor lu mu néew néew weer wu nekk nga woor ca ñetti fan boo ko doon tombale treize quatorze quinze baax na ngal na waay bu la fàtte ay askar na ngeen am werd mbokk ndawal julit day am werd werd boobee ndax da ngay dem ci imaamu saar sukk ci kanamam mu jox la ko wala imaam njaay mu sukk ci kanamam mu jox la ko laa yàlla joxoon na ko ab yeneen tam yeneen bi jox ko xeet bi yépp fexe leen bu ngeen xëyee lum néew néew de leen def subhanallah bi hamdihi ci suba téeméeri yoon ngoon ngeen def ko téeméeri yoon bus bu ne de leen def la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir téeméeri yoon lum néew néew astafurlah téeméeri yoon lum néew néew nga julli ci yonente bi alayhi salaam téeméeri yoon bari lan wax laa xawla wala quwata illa billah loolu benn moteur la boo xam ne nii day jeexital sa dund jeexital sa jàng jeexital sa liggéey te mooy ala bi zikrillahi tatmainul qulub amul lenn lu mën a dalal nit man koo may courage ak kattan ci lu mel ne zikrullah ay yow ndawal julit góorgóorlu ci wattu sa bopp bàyyi lu ñu xaaraam yi ngay seetaan day yàq seen xel day yàq sa diine moytu yu xaaraam yi ngay déglu dalay yàqal lu bëri sàmmal na say cër yeneen ci daal yi salaatu wasalaam ne képp ci yéen koo xam ne mën naa dugg ci sëy na ca dugg loolee dana tax mu mën a téye ay bëtam dana tax mu mën a watt fayam koo xam ne amagul loolu ngal na waay léeg-léeg na koy jël ay bis di ko woor loolee dana doon lu ko fekk ay kon ndawal julit bàyyil xel ci loolu ngal la waay juróom-benneelu mbir bi mooy yéen ndawal julit fexe leen jege borom xam-xam yi dee leen dem di teewe seen jàngile yi lépp lu leen réer seen wàllu diine lépp lu ngeen jaaxle seen wàllu adduna laaj leen ci xalaatu ña nga xam ne ñooy seeni mag ci borom xam-xam bari na ay musiba yu am tey gaa yi tasaaroo ci adduna bi di taal ay bomb naan dañuy def lu kenn xamul ñu ngi koy wax ci turu lislaam boo xoolee ndaw nañu wallahi fañ jóge mag ña say jàngale diine sant ñu leen ko yëguñu ko d'accorduñ ci loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax su ko defee ñi ngi ñaax mboole mi ndawi julit bépp xalaat boo xam ne bu bees la bu ñëw ci lislaam yaa ngi fekk ci terrain bi ñoo xam ne ñi ngi nekkoon jiitu la avant yu ngay juddu di jàng diine di ko jàngale demal ci ñoom toog ak ñoom ne la waa mas mbir mu sàngam moom lu ci sa xalaat laaj leen ba nga xam ne dëppoo nañ ci ak yow insha allah boo koy def doo jum mukk moom la borom bi di wax naan wa amruhum shura baynahum juróom ñaareelu mbir bi ay yow ndawal julit doonal misaal ci sa société nanga doon koo xam ne heure bu ñuy sàkku ku wóor ñu ne ah nañu seeti Moodu Njaay heure bu ñuy sàkku ku wóor nañu seeti Fat Caam heure bu ñuy sàkku ku jub wala ku dëggu wala koo xam ne nii ku fegu la ñu xam ne yow yaay misaal bi gën a kawe ci loolu lu tax mooy yow da ngay woote ci sa comportement ni ngay woote ci sa col loolu nga war a wootee ci say jukko suñu borom yàlla ngañ ñi lool mbooloo moo xam ne fu ñu toll dañuy wax lu baax te loolu yi duñ ko jëfe mu ne ay yéen julit ñi lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def xanaa xamu ne na màgg na ci yàlla lool ngeen di wax lu ngeen dul def looloo tax dana ngeen di woote woo rawatina yéen Sénégal ñu tëddee leen ay Ibadu Rahman xam leen ne Ibadu Rahman du carte wooy jënd pour bokk ci association Ibadu Rahman du sikkim ak xaftaan Ibadu Rahman ay jukko la suñu borom yàlla melal ko suratul furqan Ibadu Rahman mooy ñi meleen nii Ibadu Rahman mooy ñi dul def lii ba baa aaya yi di jeex ngal la way loolu da ngeen ci doon royukaay bu rafet juróom-ñetteel ba mooy ay yow dawal julit sa diine ji na doon diina doo fonk diina jooy puukare woo diina joo jàpp ne moo gën ci diine diina joo jàpp ne yéen a war a woo ñeneen ñeneen ñoo leen war a roy waaye amu leen li ngeen di jële ci kenn amu leen li ngeen di roy ci kenn suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne yéen julit ñi nekk na ci yéen royukaay bu rafet ci ibrahima ak ñi àndoon ak moom ñoom ne dañu taxawoon na seen xeet ñun day dem nañ ci yéen ak li ngeen di jaamu ca du yàlla weddi nañ leen feeñal nañ noonoo suñ diggante ak yéen abadan lu dul ngeen dalu di jaamu yàlla kese ba suñu borom yàlla daa di ne ay yéen julit ñi royukaay bu rafet ñeen na leen ci ñooñu ci koo xam ne yaakaar na ngërëmal yàlla yaakaar na alaxira yàlla teral ko ngalla way ndawal julit xamal ne yow yaay borom personnalité suñu borom mu ne walillahi alizza wa li rasulihi wal muminin ki tedd mooy yàlla ak yeneen tam waaye ak ñi gëm yàlla ak yeneen tam ngalla waay bul complexe ci kanamu képp koo xam ne bi yéeféer la wala kanamu képp koo xamee ni nii dafay roy ab yéeféer bal bul dem mukk di laq sa jaamu yàlla bul dem mukk di am complexe ci dund sa diine gannaaw da nga xamee ni lii mooy di neex borom asamaan ak suuf gannaaw da nga xamee ni lii mooy di neex yàlla ñi sa borom li nga xam ne luy lor ci kanamam la nekk ak luy ah njëriñ nit moo ko yor loolu dañuy yóbbu ci ñaari feet yi nga xam ne mi ngi suñu kanam ngal la yow ndawal julit xamal ne 24 décembre ak 15 juin nga war a yemele amul lenn loo ci def da ngaa war a yëg na dara xewul bokk na ay erreur ñu ciy woote sax ay ndaje ki conférence ki nangam mbokk dañoo war a jàpp ne dara xewul comme ñoom yéefir yi suñu ko rek tabaski ñoom dañu jàpp dara xewul loolee la julit war a gëm mu am ci ñaari gàllankoor yuñ ciy wax waaw loolu kat décembre kat juddug Isa la ñun ñëpp ñoo ko bokk du juddug Isa bokk julit Isa judduwul 24 décembre te même bu juddoon 24 décembre yeneen ci yàlla bi kay moo ñu gën a xam Isa musul naggal juddug Isa loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ñu ne waaw 31 décembre moom mooy fin d'année bi ñëpp ko bokk mbokk loolu du suñu fin d'année fin d'année yéesér yi la ñu ne suñu fin d'année mooy bis bu mujj ca bisu ca weeru tabaski loolu mooy suñu fin d'année suñ première année mooy bisum dama xarit suñu yoon nekkul ci feet yooyee loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax et yéen bokk julit xam leen ne bokk na ci loolu ba tey yow ndawal julit nga doon sa bakkan bi nga jagleel ko yàlla doon koy jihaad ci yoonu yàlla bu ñu nee jihaad waxuñu la nga dem di pose ay bomb wala leneen waaye ndawal julit da ngaa war a doon koo xam ne war ngaa taxaw taxawaayu sahabatul kiram ñu taxawoon jël seen bakkan ak seen alal jox ko yàlla lépp loo xam ne ay effort la yuy tax di nga taxaw nga taxaw ca lépp loo xam ne day jëriñ jullit li nga taxaw ca rawatina ñi nga xam ne dañ leen di tudd ay homme de tenue étoile militaire bi nga xam ne dañ leen di yar ca armée ba mooy on nous tue mais on ne nous déshonore pas ñun dañ ñuy rey kenn duñu toroxal xam nga luy toroxtaange jullit mooy wuute ak boroomam kon na nga d'accord ñu rey la na nga d'accord ñu tëj li ci kaso waaye bu nangu mukk kenn di toroxal sa diine kenn di suufeel sa diine fekk sa bakkan di ko fekkee yow sakku pour tey dinaa sauvé ou périr danaa sauvé wala ma dee ca naam loolu lu noobul la waaye nga la waay ne yàlla tax nga gëm ni sauvé benn jullit moom nga sauvé woon àdduna yépp ñoo yem yow mi nga xam ne yaay policier wala gendarme wala kum mën a doon nga la waay doonul nitug dëgg koo xam ne nii da ngay joxe sa bakkan ngiree doomu aadama yi am jàmm doomu aadama yi nekk ci dëgg lépp luy caaxaan nga xeex ko lii mbokk moo war a nekk taxawaayu ndawal julit lan cay jeexale mooy mbokk tey sunu ndaw ñu bëri dañoo jàpp ne seen jubluwaay bi tax ñu ñëw ci kaw suuf mooy nañu fexe ba réussir ci wàllu àdduna ana kan ci yéen moo déggul barsa wala barzaq ana kan ci yéen moo ko déggul waxuma leen démb waxuma barki démb waaye suba tey gi am na ku may woo naan ma imaam waaw dañ doon xalaat dem Italie waaye dañ ne dañ ñuy jaarale libi lii sa xalaat ci loolu ma ne ko bul dugg ci loolu suñu borom nee na bu leen sànni seen bakkan ci alkaane yéen a ngi dégg média yépp di wax ñaata ñoo dee ci géej ya des milliers ñaata la ñuy jël yóbbu jaam kenn xamul nu mu toll ñaata lañ bële ko ca kaay muy mujj dégg plus de vingt mille yow ndawal jël lay dugg ci loolu mais am na ci ndaw ñoo xam ne liñ naan sama yéen niwu ci barsa wala barzaq mën naa dem rek imma ma dugg barsa wala ma dem barzaq kooku dafa jàpp ne jubluwaayam ci kaw suuf muy wërsëg mbokk du loolu suñu borom nee na bind ma nit ak jinne lul ñu jaamu ma yow ndawal jëlit yaa ngi xëy mën nga lekk mën nga naan mën nga julli mën nga woor loolu mooy jubluwaay bi gën a mag naam boo mënoon a dajale wërsëg ba wërsëg woowee nga moom ndakaaru yaa xam waaye ut ko ci utin bu teey te xam ne yow ndawal julit la barkeel dina jëriñ àdduna ak alaxira mooy bépp wërsëg boo xam ne da nga koo jaare ci ngërëmal yàlla subhanahu wa taala lépp loo xam ne di nga koy am yaa ngi ko jaarale ci foo xam ne baaxul tubaab yi nga xam ne xamuñu dara ci alaxira sax dañ naan le bien mal acquis ne profite jamais mooy alal boo ko amee nu lewul lu mu yàgg yàgg du la jëriñ kon doyloo leen li ngeen yor mécc boo yor lu mu néew néew bu ko xeet ñaanal yàlla subhanahu wa taala nga barkeel ko yàlla mën na laa sonal sa dund yëpp nga dem yàlla wërsëgal la doom joo xam ne nii lépp lu la rawoon ci àdduna moom dana yàlla dana ko dabantal loolu kon mooy jubluwaay bi nga xam ne da nga koo war a gànnaa yoo yow ndawal julit mooy man day jaamu bi yàlla la fas yéene naa dund ci jaamu yàlla fas yéene dee ci jaamu yàlla comme nañ ko suñu borom waxee qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin samay julli samay jaamu yàlla sama dund sama lépp yàlla laa ko jagleel te loolu day boo ko defee suñu borom yàlla dana la jël ak woom le def sa biir xol suñu borom yàlla dana la may dund gu féex doomu aadama yu bëri nag dañuy jaawale diggante bari leeg barkeel la benn waaye ngeen ne ak immeuble am ak mercedes am fekk yow moom du nelaw guddi benn waaye ngee moom amul sax xëy na dépense suba waaye yàlla def ci waxat taw féex mu daal di am dund gu neex loolu ngal la waay yow ndawal julit fakkul loolu loolu moo gën di milliard te nga am dal mu xel ne yàlla dana la teral suñu borom nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib loolu moo tax ba ndawal julit bi sa borom ne ku ragal yàlla dana ko génne ci ay xat-xatam wërsëgal ko fu mu ko foogewul lan mooy ragal yàlla mooy lépp lu xaraam moytu ko lépp luy ndigal def ko waxtu julli jot nag dara mënul tee mu julli fekk waxtu yi paas abadan suñu borom yàlla nee na bu ñu noddalee juma dem leen julli ji zalikum xayrun lakum lépp loo mën a nekk ci waxtu julli jot ndam la waaye bàyyi ko dem julli ji loolu borom bi nee na xayrun lakum loolu moo gën ci yéen amma képp koo xam ne da ngaa jël intérêt adduna jënd ko la nga xam ne mooy sa jaamu yàlla na am mën nga koo am de waaye day du mujjee yow lu dul ci alkaange du mujjee yow lu dul ci loo xam ne musiba la mbokk lii jàpp nañ ne day fukki ndénkaane la yoo xam ne nii bépp doomu julit boo xam ne nii gannaayoo na ko yàlla dana teral ak dundam ci adduna heure bu dajeeg boromam yàlla subhanahu wa taala teral teral ko yàlla na yàlla boole ci suñu njaboot boole ci njabooti bépp julit yàlla na yàlla saxal ngëm suñu xol yàlla na yàlla xamal ñu diineen yàlla na yàlla may ñu teddaange ak lislaam yàlla na yàlla boole ñuy wóoti jële ci moom yàlla na yàlla boole ñuy muñ ay dogalam yàlla na yàlla boole ñu nekk royukaay yu baax ñeen julit ñi yàlla na yàlla rafetal suñu mucc jéggal mboolem suñu waajur yi jiite woon jéggal mboolem julit yi jiite woon yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu àjjane firdaws mi suñu wàccuwaay اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين